jëm ci ay waxtaan yoo xamante ni nii commission culturelle bi wilaay bi mi ngi koy amal te jëmee ko lépp rek ci dimbalante ci sunu biir ngir waajal sunu ëllëg muy waxtaan yoo xamante ni nii doomu adama da koy soxlawoo waxtu wu ci nekk ndax yàlla mu doon ab yóbbalam ngir yitteem gën a kawe ay jéegoom yi itam gën a tiipaloo lépp rek jëm ci kërug ëllëg muy amal bis boo xamante ni nii biñ ko tàmbalee yàgg na te ñaan lay doon boo xamante ni nii sunu yéene mooy mboolem jullit ñi nga xamante ni dañoo fàddu suñ borom defal leen yërmaane aku njëggal ca foofee ñu nekk mboolem ñi fi des itam sun borom bañati leen topp dara ñi ñëw sunu gannaaw it sunu borom dugal leen ci biir njëggal googee wa ma dalika alallahi bi aziz ginnaaw sunu borom dañu ñaan leen ma ma may leen nun xamuñu lu yàlla tële waaye liñ bëgg moom xam nañ ko moo tax nu tànnoon ci at mi bis boo xamante ni nii danañ ci jàng alxuraan di jàng xasaayit di def istixfaar def salaatu ala nabi di génne ci sunu ñaq di ko togg aw ñam di ko jox jullit yàlla yi lépp nag jublu ci rek aw yiiw woo xamante ne ni suñ borom dana ko def ci téereb jëfub bokk yooyee jiitu ci ndax alxuraan ñu ngi nuy nettali ni dana am ñoo xamante ne ni dana ñëw gannaaw ñoo ñiy fàddu waaye seen yitte mooy ñaan seen borom mu jéggal ñi jiitu ñaan ko itam mbañeel gi dox seen diggante ak ñi fi nekk sun borom génne ko ci seeni xol wallazina jaau min baadihim yaquluuna rabbana ixfir lana wa li ixwanina allazina sabaquuna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lillazina amanu nu jànge ci ki nu yàlla digal nu jàng ci moom mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni doomu aadama bi bu faatoo ab liggéeyam dog na tëj nañ téereb jëfam waaye yonent bi xamaloon na ni manees na ko ubbiwaat bind ci aw yiw xamal nu itam nan lañ koy ubbee mooy jëf ju baax joo xamante ni ni da ko fee bàyyi woon nit ñi di ko jariñoo moo xam bind ab téere la bu am njariñ wala bënn aw teen ab teen wala ay garab yi meññet yoo xamante ni nii da fe fee bàyyi woon nit ñi di ko jariñoo wala tabax jàkka yu mel noonu wala doom ju baax joo xamante ni nii da ko fee bàyyi gannaawam mu di ko ñaanal nun nag nu fas yéene doon doomi jullit ñépp mooy sunu yéene fas yéene leen a féete gannaaw kemte lay li suñ borom dogal ñu sax ko fi ñu leen di fàttaliku donte njàng mi dañ ko dappetoo waxtu wu nekk weer wu nekk at mu jot waaye nag dañ ko wutal bis boo xamante ni dañ ko caa màndargaal te doon ñaan yàlla ñëpp déggnu ba mën koo ànd ak nun doonte duñ daje ci benn barab noonu nag yàlla daa dogal nu dëkkee Tuuba te Cheikh Mouhamadul Moustapha doon wax ni sëñ Touba nee na wut lu baax fépp la baaxe waaye Touba la gën a sakkane noonu nag yàlla dogal nu dëkk Touba sunu xel ne ci nuy ab mouvement boo xamante ni ni noonu la ko boroom nase mooy nuy jàppalante ci suñ biir di dimbalante suñ kemtalaayal kàttan muy sëriñ Cheikh nu gis ni fii jamono toll laaj na bu baax a baax communiqué waat ak nit ñi wax ak ñoom yee itam ci foye gi leen saytaane di foye yee bu baax ci foye gi àdduna di foye yee bu baax itam ci foye gi leen seen bànneex di foye mooy sàgganeloo leen jaamu yàlla ba pare bëgg loolee leen cër yu kawe yaafuus loo leen tàyyeel loo leen ci lépp lu baax ba pare di leen xeemeem loo lépp loo xamante ne ni moom la suñ borom dig jaamam ya nga xamante ne nii ñooy rafetal te Sëriñ Tuubaa waxoon ni bi xadril kat di taksibul maali fa man talabal ola zaharal layaali kemtalaayal ni ngay sonne ngay ame ay daraja yu kawe te nee na ku bëgg ab cir bu kawe faw nga wàññi say nelaw moo taxoon mu doon wax ni na ngeen wàcc lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi te dem ci bàmmeel yi ba dem ci bàmmeel yi su ngeen demee ci bàmmeel yi lu ngeen bëgg a tëdd dangeen ko tëdd mu mel ni nit ñi nag seytaane daf leen ragalloo dëgg ba booy wax lu jëm ci yàlla ñu ni kii dafa bari lu muy tudd dee dee mëni su ñàkk tudd ndax mooy dëgg àdduna ay gént la ay gént nag jërut di waxtaane gént jërut di waxtaane ndax boo yeewoo ñàkk lépp mooy mën ngay nelaw dem fi Màkka wala arab wala nga dem fi France wala Union soviétique wala Amérique ci biir gént gi danga am xaalis danga nga danga tabax kër gu mel na la neex danga nga yor oto waaye boo nelawee ci biir nelaw yi waaye boo yeewoo ñàkk lépp adduna noonu la mel lépp adduna ay gént la moo tax suñu borom ni fa laa yaxurannakumul xayaatu duniya yéen fexe ba woraakoon bi muy adduna bum leen wor kon lii dëgg mooy li nekk ci gannaaw de dëgg googu yi mënoo ko waxtaane te tuddoo dee nit ñi nag dee lañu bañ ko ko tudd boo koy tudd sax duñ la déglu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ni nit ñi dañuy nelaw ñu kañ la ñuy yeewu mu ne buñ duggee ci biir bàmmeel la ñuy yeewu ndax booba dana fekk yeewu am njariñ bu boobaa deetu fekk yeewu am njariñ looloo tax nit yàlla yi musuñoo noppalu musuñoo noppi musuñoo jekki itam ci wax ak ñi leen suñ borom booleel ak di leen soonal coono boo xamante ne nii coono bu jëm ci yàlla la ndax booba rek moo am njëriñ mu mel ni nit ñi dafa bari lu leen ump te duñ ko xam li fekk aguñu ca mooy nit yàlla yëpp boroom xam-xam yëpp liyaar nañ nu dee ak wextanam waaye mel ni nit ñi duñ ko mën a xam li fekk àgguyu ca te boo ca àggee ba xam ko deetoo ko mën a nettali ndax retour amut ndax xëy na ni ngay toogee di wax ak nit ba mu yàgg mu noppi nga laal fekk mu dee nga defe ni dee dafa yomb wala xëy na nit dana wopp ba àgg foo xamante ni nii su fekkonte ne nii jàkkali nit dafa dagan ay bokkam dañ koy jàkkali mu noppalu ndax coono bi ñuy gis ci zahir te fekk sax mën na am baatin ba demewut noonu yooyu yëpp kumpa moo tax boroom xam-xam yi bëgg nu moytu te waaj moo tax liyaar na nu dee ci anam bu ne waaye taxagut mu mën a dugg ci sunu bopp mu ngi mel ni jigéen ju ndaw ju musta am doom rek boo ko doon misaal aw mat mënoo koo kàll mënoo koo lépp mënoo ko koo misaal ba mu xam Euh, dangar ja nu mu toll lu dul nii rek da caa àgg su ca àggee nag lay door a xam ni ndekete lañ ko doon wax nii la demee donte boroom xam-xam yi nee nañ mettitu am doom moo dambandoo ñaar fukki yax ak ñeent ci nit ñooyam te loolu kenn ku ne xam na ni metti na waaye boo koy wax nit ne it da koy romb ci noppam rek dana ci am yëg-yëg bu nduuti bu muy dal noonu la dee demee boroom xam-xam yi biñ ni misaal dee dañ ni mi ngi mel ni ab gàtt boo xam yaa ngi koy fees rendi woo loolu nit dana sentir ni metti na waaye bu jógee ci jataay da koy fàtte yeneen ñi wax ni itam ni mi ngi mel ni am picc moo suqi ba mu set nga tàngal ab pool ba mu saas nga teg ko ci di ko saaf te rëyoo ko ñeneen ñi ci des ni wax ni mi ngi mel ni juróom-ñaar fukki jaas yi yuñ la dóorandoo benn yoon ñeneen ñi ci des wax ni mi ngi mel ni cëggub déem cëgg boo xam dafa am ay dégg sax ci sa yaram ba japp fep ba genn ci bob ñu jox kom ponkal ni ko mu fekk ko ak doole waye loolu lepp taxut ba aadama yeewu ci liñ koy wax yoy yep nak ay nax la yo xamanteni ni saytane mo nu ko nax bakkan nu ko nax aduna moonu ko nax mooy yooyu yëpp saytaane ak bakkan ak bànneex dañ ñu nu garaawut demewut noonu gaa yi dañuy wax rek te sunu boroom li wax dana ko def li mu def ci ngay sukkandiku xam ni lim la wax dana ko def ndax takal sa bay bam deugal nga indil ma lolou ku dul yalla bok santane won nit ñi lank te yaay tak tanke ya takk loxo ya sañ gi ga wutu morsa lëmas yew bam ni ngod nga yanu yóbbu mo xam nday la mo xam bay la mo xam dom la mo xam rak la mo xam jarbat la kum ci aksi ci yow rek non ngay deme mo xam ab serign la ñepp non lañu deme euh, lolou mo lay xamal ni la euh, la ca dess dañ ca àggagut waye suñ ca agge noonu la noonu lañ koy defee te demin woowu rek fi mu doon nii buñ la takkoon yot la mu négliger la rek comme nii xew ci jamono ñi xam da ngay soxla nit mu teg la bëgg publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg monsieur magal ni njaay Pro barab barabu communication di ngeen si ànd ak Xaadim njaay bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu rafet boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Xaadim njaay borom njaay Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma wóote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 boo bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu ci temps am taalibi gaaw efficace contactel Xaadim Njaay da ngay am la nga bëgg ci liggéey bu set wecc